OFNAC et rapport la fin du de mandat de Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté montre tout avec une dernière saisine des artistes. Euh, Mami mhm. mm. dugal ci sa téléphone. waaw nga génneel ma lii nga liiral ko. lii lu mu doon fin de mandat bi. oui parce ma jox la ko nga liiral ko dama dama bëgg mu liir que c'est hyper important. waaw euh, bàyyi ma jox la ko fii mu ngi nii am euh, waaw kay. voilà. tey kër boo xam ne kenn du naan café aji ndaak may ma café boo mu ngi mu ngi. Ah. mu ngi nabu sam nabu nabu koor na mami sam. ma. <laughs> waaw moo ree. alerte quotidien la. lu moo ree. nabu sam la ñuy ree nabu sam. nabu sam nabu koor xanaa xamoo am na internet boo xamante ne loolu rek lay bind mami koor nabu sam bu fas kanam gi. Eh aywa oh, sonn waaw waaw waaw kooku moom kooku moom lay tànn. Mm-hmm. Pa Assane lii la eh anamu.

Le bilan de l'OFNAC sous Seynabou Ndiaye Diakhaté est mitigé, insuffisant et décevant. Hmm? Mody Niang mu ni plus euh, plus de 30 dossiers de l'OFNAC dorment d'un sommeil profond sur la table du procureur depuis 2016 ma xaw koo tekki ci wolof tuuti. ñu ni ci jamonoy kudd bu Cheikh Oumar Anne. Hmm. ñu ne ko ci ministère du développement euh, communautaire bu Mansour Faye travaux ak enquête nag ba tey même destin bi rek la am dara changé wul dara bougé wul dans yoota journal bi nee na Seynabou Sougou li mu euh, Seybani Sougou li mu wax mooy bilan wu nag bi euh, nga xamante ne Seynabou Ndiaye Jaxate moom moo ko jiite mu ne mitigé na benn ñaar insuffisant na bi ci topp mooy décevant na lool moo di ñaa mu ne lu ëpp 30 euh, dossiers yu nga xamante ne nag moom moo ko doon gérer xam nga fu mu ne fu mu ne nii. nee na mu ngi nelaw ci li nga xamante ne moom moo table procureur. loolee 2016 ba 2022. journal bi nee na depuis le 2 avril 2012 de tous les dossiers yi nga xamante ne ñu ngi nelaw maanaam ci table président politicien comme euh, ki nga xamante ne moom mooy procureur am benn benn kese rek lañ ci traité xam nga mooy ban. bu Khalifa Sall. Hmm. Ah, ba continuer wala. ñun loolu lañ leen meeku ay ca. nee na or si euh, monsieur Sall a volé un poulet mu ne nombre de femmes bari na ci ay góor ak ay jigéen yoo xamante ne ñoom ñoo wër président politicien boobee. Mhm. mu ne sàcc nañu ay éléphant lan mooy éléphant ñay ñay maam ñay. càcc gërëy càcc gërëy ala càcc gërëy. te ñoom ñëpp kenn kenn puniru leen mujjul fen càcc ga féroce daal dama mu ne dekki dekkil. Ah? dee ko des na. bi ci suuf nag xam nga bët yi moom daa baaxul lool. mu ne dekkil est-ce que ci. tan dimbali ma ci bët yee baaxul. Euh, mu ne dès qu'il Macky Sall s'est rendu compte que le premier dossier traité concernant ses proche il a commencé à créer des problèmes à la présidente de de l'époque Nafi Ngom ah Nafi Ngom Nafi Ngom Nafi Ngom Nafi Ngom Keita si. gis nga de. yéen kaay bi loolu bind waaw. te mm. yàlla na leen yàlla fay. mami Samba ah, jërëjëf Socé ak mami Socé ah, mami Samba ak Socé Ndiaye. dëgg na dama lay wax benn affaire. Mm. xulil faa jëm aw. waaw waaw waaw daa daa am xulil. laa ilaaha illallah man bëgguma muy gëj ci plateau bi. xorom la fi de. <laughs> soose bu nekkee ci plateau bi du toog du taxaw comme ku ndékkee ceebu waalo. ay bu gars yi doon gis li xew. plat fii nee naa ñoo dàq télé Sénégal. Eh. fii. Hmm. yow Mamy Samb li nga fi liir. Ah. soose tëj ka fee. Ah. Mm-hmm. ak ñi ko dégg ñëpp. Mm-hmm. lan moo la jàngat bi. of nag boobu nga xam ni waa biennale artistes sénégalais yi dañ leen saisir. dem mm-hmm. xaw a barki dem ci fan yi pour wax ay jafe-jafe yu am ci biennale bi. wax naa la dinañ ci dikk. te dañ ci waroon dikk tey mais dinañ ci dikk ëllëg. incha allah parce que xamalu mmh. jël rek benn parti wax ak ñoom. Mmh. foog mu wax ak parti bi wax ak ñu organiser ma Massamba mbay nu ngi laa nuyu. Mmh. daanaka laaj moom nan nan li xew yëpp nan la mën a xewee ak moom lan moo ci xalaat. ba nu ko jotee ak kilifa yi fa ne. mooy dernière saisine bi ñoo ñi nga xam ne ñooy artistes yi saisir euh, OFNAC waaye en général l'OFNAC déggoon ngeen fi si jamono Serigne Bassirou Gueye suñu baay boobu suñu mm-hmm. kilifa ba mm-hmm. ak Seynabou Ndiaye Jaxate ñoom ñaar ñu la sànnante pikk mm. ci wàllu dossier yi nekk ci fële sanu yaay bi Seynabou Ndiaye Jaxate doon ko nekk am na ay dossiers yu fa nekk te kenn lijjantiwu ko ci ñu mm-hmm. jot ci ay rapport joxe ci ay rapport 2016 ba 2022 ay rapport ya nelaw kenn lijjantiwu kenn ki leen intéressé woon ngeen ko daan xeex mu di Khalifa Ababacar Sall moom waa réew mii mun naa continuer noonu te kenn du ko wax mu la dëkkee waaw da ngeen contre président bëgguleen président da ngeen bañ président lu ngeen bañee président ba président dëkkee def na te ñun ñu nekk suñu biir Sénégal war fii dund normal of nag kan moo ko créé du président Sall moo ko fi indi mhm. ca jamonoy rupture sobre et vertueuse ca jamono ba mu dawal diir gis leneen Nabou Ndiaye Nabou Samb Nabou Koor. waaw yàlla Nabou Koor Ndiaye bi j'aime bien sama yaay Ndiaye la sant. waaw Nabou Koor. Mhm. waaw léegi la chose mooy qu'est-ce que le président doit nous dire sur ça wala boog dañuy dellu ca kudd ba dossier yoo xam ne daf ci teg. kudd loolu lay nekk mhm. donc képp koo xam ne jege nga président quel que soit le dossier pas de problème boo contrer président sa dossier bu tolloon ni yoo. Mhm. daanu ko ngandal mu toll ni ñay loolu loolu la mu doon président Sall président Macky Sall loolu lan la lan la lan la la xew hmm. fan la jëm hmm. boo nu ko waxul lu noo wax Mamy Samb bëgg nu la xëy di yuux wow wow ndax lan de mauvaises décisions on dit qu'il y a sur le coude géré par Cheikh Oumar Anne sanu baay boobu. waaw sanu kilifa boobu. waaw nu jiin ko. Hmm. lijjantewuñ ko. yow président nga xëy def ko ministre de l'enseignement supérieur. Hmm. kon kay yow président wax nu ne Cheikh Oumar Anne deful. ca kilo ñebe ba la. ca kilo ba. <laughs> ci kilo ñebe balaa. ca ñebe bala. ñebe rek ak dooleem. muy but buti. man moo xam naa ni Sénégal maa ëpp xolu kuy but buti foofu. ñebe ji ñebe ko baax. yéen réew mi métti na métti goo xam ni. nit ñi amatul lu lekk ndambe la lu dese. <laughs> nga jël kilo ba war kaa yóbbu 4000 francs. bàyyi leen soos waxoon naa leen ko fi. ah bu dee looloo am ginnaaw lan ngeen kaa jëndee loolu la rapport bi waxoon ci jamono te kilo ñebbe ba la waaye yéen réew mën naa toll foofu ci guuta du matin au soir à la mhm. nguur boobu kon mënul waxuñu da ngeen a bon de kon mënu leen dëgg neex yàlla. quand on a entendu le sieur Sonko dire à l'Assemblée nationale ne leen ci wàllu gestion bu fekkee ni da ngeen am ay multinationales yi fi nekk ak ay étrangers ay investisseurs ngeen war a jël ci ñoom taxe ba ci ay taxe de plus-value loo xam ne ñoom ñiy spécialiste xam nañ ko ca impo et domaine ak la ca des ca finance dégg naa la wax bi defu leen ka maanaam ànd ak ñi biti lor sa askan la ngeen waroon jël ca ñooñu jël leen ko ngeen kaa jël ci sénégalais yi taxe ak sur taxe li noo dundee seer ngeen koy roppat ci sénégalais yi loolu la mu doon mu jur fi noo toll nii. mu jur corruption parce que réew boo leen xoñoñalee danoo fat ba nu fattee mais tout le monde devient corrompu ñu nag sunu morom mooy jur une presse bu waroon def liggéeyam du ko mun def parce que dafa essoufflé. dafa asphyxié mooy jur administration essoufflée asphyxié parce que ka ci nekk yaa ngi naan pour mu affecté ma fa ma bëgg dem wala ñu yokkal ma defal ma ma avancé sama avancement sama situation sama statut euh, il faut ma ànd ak nguur gi su ma àndul ak ñoom donc ñu sant ma liggéey bu bon ma def ko. Mhm. li ma war a def mu jaar yoon duma ko jaaral yoon. ngeen di plomber dëkk bi noonu fatt ka mhm. la sanction positive et négative c'est not chef d'État notre président moo taxaw King Fahd ab courant coupé ci 30 secondes mu la mer mu la mer mu la mer naan lan en Afrique on ne sanctionne pas ici on ne sanctionne pas après le contraste là entre se di entre dire et se dédire à un niveau aussi supérieur et suprême moo tax nit ñi ne ñun dañoo sonn ci présidence bi ci nguur bi dañoo sonn ci cette forme de gestion dañoo sonn dañoo sonn dañoo sonn léegi nag sanu yaay bi moom ak su néew lañu ko dénkoon. Mhm. nit ñi dañ ne woon bu Nafi Ngom Keïta demee keneen kanu fay teg moom day nekk acolyte nguur gi. Mhm. waaye un temps soit pas jox nañ leen ay rapport 30 rapport 2016 ba 2022 ma nga ca table procureur yéen kay bu lii tax bu leen woowee débat ngeen làkk. lanu si wax yokk siy daggal. déedéet jërëjëf jërëjëf Seck ay ca man mi sànni ci ay kàddu balaa ngay waaj pour la kon yow danga koy baale da moom dafay paas le temps mu préparé ay ca euh, moi je que li ñu war a njëkk def soose comme dafa paas na ma waxaat nga ni ñebbe muy but but ma sonn li ma waroon waxee paa na ko paas ni ñoo fatigué yàlla baax na ah. njaaya demal na ay ca tëmbala dama tey gosaas na la indil ñebe ju bari bëgg ngeen waxu ñebe trop. Eh, ñebe nag ak a baax. dëkk dëkk bi li fi gën a li fi gën a baax moo indi problème ñebe oh. laaj ma ak lan. Mhm. nen ya. <laughs> yeggal mën naa bañ a am nen sax mais bu amee ay dog bu ko sax jéem a jaxase. <laughs> bu amee ay dog nga suul ko ci biir. dogu dogu ah non. Ah. chuu kooku boo ko kooku boo ko ndëkkee da ngay carburé ba 22h doo sonn. ñebe ay waa ndogu yàpp wax wax nga lu wax nga lu jafe. ay suul ci biir. doo ko amatul ay laxas ak ñoom seen. ay mbaq ak ñoom seen yooyu ak garaw bon bref <laughs> euh, OFNAC gii. tey moom amu leen lu ngeen jël yéen wala. ñëwal soo ko yàlla nga gudd fan. <laughs> man man damay bëgg dina am ci plateau bul di absenté damay bëgg di la am ci plateau. waaw ma dindi sama bouton bi. fan yële passé dama koo def gis benn commentaire waa ji ne waa soose bi moom bu ngeen ko dimbali mu dindi bouton kawam. <laughs> xaaral ma xaaral ma dindi ko balaa ko waa ji bindaat. sa waay dindi naa ko dégg nga <laughs> parce sa xam nga ne fajaru lu gën a neex ci fajaru mooy nga ñibbi sa kër teg émission bi di lire commentaire yi non da ngay réer ba daanu ci suuf mais gaa yi da ngeen baax nag vraiment. ah ils sont très gentils. da ngeen baax macha allah. kenn du ñoom dindi naa bu baax baax keroog ma lire commentaire bi maa xam. <laughs> <laughs> waa ji kii wax na ma noonu la ko bindee mais soose bi da ngeen ko dimbali mu dindi bouton kawam bii. dañ na te des fois yu ci ëpp nag dañ lay dañ lay rectifier ak diplôme ñoom dañu baax daal. non non ils sont ils sont gentils en tout cas nous nous nous nous on accepte les critiques avec philosophie. absolument waaw avec avec avec auteur non non non mais yooyu yooyu garaawul ma mi. sama sama parce que ki lay ki lay critiquer dafa bëgg nga avancer ah. pour dëggal li muy wax. Hmm. ki la xaj. Hmm. sëñ bi ki la xaj. Hmm. moo tax nga am. dëgg la. bala xañee rek nga uti. Mm-hmm. ce qui est ce qui e ce qui est sûr mooy bon ak lu ñu mun ti wax buñ jàpp ni mukk lu ñu leen jàppal la ñun non au contraire on rigole on est ensemble on constitue une famille quoi. ça c'est léegi léegi léegi kuréel gii. Mm-hmm. ñu naan OFNAC. waaw ñëwal ñëwal ci OFNAC. man damaa gëm ne dañ ko war a réformer. Mm-hmm. dañ ko war a réformer waaye yow nooy defee trente dossiers. jox procureur muy jël temps léegi yow mi ko ko jox moom après lan la yoon may looy def. est-ce que xam nga ne moom bu xasee ba joxe ay rapport amatul benn pouvoir. of nag gi ñuy coow nii bu xasee ba mën ay enquête am def ay rapport am jox procureur jox président de la république sa mission est terminée amatul benn pouvoir amul pouvoir de poursuite ba na nangam seul le maître des poursuites mi procureur moo war a examiner ces rapports la mm -hmm. mais waxuma la sax rapport yi mais même la composition de l'OFNAC mm mais dañ ko war a xoolaat mm-hmm. est-ce que les partis de l'opposition sont représentés dans l'OFNAC par exemple je ne le pense pas pourquoi ñu war a jël société civile rek et quelle société civile d'ailleurs oui quelle société civile parce que gis naa fa ay nit ñoo xamante ne saa waay ñii ils sont tous sauf société civile hmm. lu ñuy mbubboolu rek et hmm. pourtant ñi ngi biir OFNAC nga di wax de ni leen tànnee sax ci boppam ça pose problème hmm. booy tànn ay représentants ci kuréel mais bàyyil kuréel gi tànnal seen bopp booy jël société civile bàyyil société civile yëpp dajaloo ni ñun diw la ñu tànn moo ñuy représenté à nag mais waa ji mooy toog jël ay décret tànn ku ko neex dugal ko OFNAC léegi nag day def liggéey bu am solo sénégalais yi am ci espoir trop parce que kii ñëw nag bay porte plainte mais yoonu Sénégal mooy aaye ko fajal boppam te sax man tey tey tey tey ñii tey su ma la su ma la waxoon dara nga dóor ma gaañ ma pourtant maa la tooñ de mais yow la ñuy jàpp. parce que yoon mooy aaye ko fajal boppam. li mhm. tax ñu naan justice justice pour indi équilibre social la ci réew. léegi nag képp ku dem nag porte plainte yow def nga li la yoon wax OFNAC def liggéeyam def ay rapport am jébbal la mettre des poursuites mais pourquoi le gars ne poursuit pas. <laughs> dañ koy sant. te xamul ndax moom dafa am ko ko féete kaw. c'est le ministre de la justice. Ah. ministre de la justice dafa am ko ko féete kaw c'est le président de la république. li mhm. tax ñu naan. Macky moom mooy responsable de ce qui se passe loolu la parce que moom moo am pouvoir ne eh procureur ak lu mu nelaw nelaw nelaw moo ko war a yee ne ko mais tous ces rapport là alors où est résultat il faut les poursuivre mais ñu wax nga ne am na dossier yoo xam ne maa ci teg sama cont mais saa waay loolu dafay indi rupture de confiance entre le peuple et la justice. waaw ah, waaw rupture de confiance lay indi moo tax gars yi léegi justice populaire bi ñu wax. parce que dañu dem ba gis ne seen yoonu réew fajalatu leen dara. Mm-hmm. gars yi commencé fajal seen bopp. boo gisee réseaux sociaux yi lu tax léegi dénigrement yi bëri. parce que da ngay dem OFNAC nag def liggéey après affaire bi du mujj fenn léegi gars yi dañuy mujj def porte presse. di fajal seen bopp ci réseaux sociaux yi yàq la lu mel ni xeme. c'est ça. parce que ka la war a poursuivre poursuivre la. mi mm-hmm. xaar ordre bu jóge ci kaw ki war a jox ordre sax moom day xaar ordre <laughs> moom ministre de la justice ministre de la justice déglu président de la république kañ la séparation des pouvoirs bi ñuy wax anamu. mais anamu moo tax OFNAC gii gis nga fekk réformé wuñ ko dinañu continuer di def ay rapport te du mujj fenn maa la ko wax.